Euh, Cheikh Tidiane mi ngi ko doon wax sànq français muy euh, deuxième euh, journée ñaareelu bëccëg éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 Congo Brazza nag la Sénégal demoon seen jongante boobu Congo Sénégal sunu gaynde yi ñoo fa jëlee ndam ñetti bal ci benn defe naa noonu la mm-hmm. Bakary Cissé voilà en na Cheikh Tidiane ñu jot euh, baakaar yi quand même euh, démb yaa ngi naan mm-hmm. marché bi quand amoon na tuuti ay lënt lënt ci wàllum arbitrage wala gisewu leen moom. waaw waaw arbitrage bi kay moom xawoon na euh, doy waar. mais xawoon sooxe. je pense ñu bari yaakaaroon nañ ne arbitre bi dafa xawoon a jeng mais. jeng li ma gën a jëng surtout ci côté congolais yi. Mm. mais li ñu parce que penalty boobu imaginaire le sifflet Sénégal contre Sénégal ci première période bi. mais bon soo xoolee match bi yëpp tu te que peut-être que incompétence la gën a nduru que euh, Dieng mm-hmm. ay coup de yu bizarre la doon siffler mm-hmm. mais bon c'était pas le plus important li ñuy wax ce qu'on va retenir quand même dans ce match c'est les trois points de mhm. l'équipe nationale du Sénégal mhm. euh, récupérer waat place leader bi ci groupe H bi parce que soo xoolee actuellement on est à six points mhm. di deseen dese nañ benn double confrontation bu ñu am Namibie bu ñuy dajee ak Namibie match boobu il suffit nga gagner ko aller-retour je pense que loolu suñ ko defee dinañu non pas qualifier mais di nga jël pays ci poule que des na beneen tour pour qualifier coupe du monde. d'accord euh, ci xaw a doy waar. justement Bakary euh, en ligne mun nga ko jël. allo Bakary Bakary Cissé Bakary on t'entend mal en fekkee yaa ngi en ligne allo. apparemment. Non, ah, je pense en ligne, que, ou bien on a un problème de retour. je pense. Je pense qu'on a un problème de retour. Bakary Cissé euh, Cheikh Tidiane voilà tu continuer le temps que ñu ñu jotaan ko. waaw waaw li doon wax rek man avec euh, suñu. gagné double confrontation bi nga xamee ni mooy troisième ak quatrième journée bi euh, je pense que Sénégal dina jege qualification bi ci beneen tour bi parce que yeneen équipe yi adverse gëw ma ni mën nañ topp rythme bi ñu demee ni ils sont un peu faibles. mais quand même ça se comprend aussi parce que soo xoolee effectif Sénégal bi ak euh, yeneen ñi ñu bokkal pour quand même y' a y' a rien à voir c'est le jour et la nuit. Mhm. mais euh, mais nag. Euh, on va pas non non mais non on va pas se satisfaire ci le plan sur le plan comptable. Mhm. on va applaudir mais il y a beaucoup de manquements sànq Mor mi ngi ko doon wax surtout quand même euh, ci côté yi c'est c'est la grande faiblesse de l'équipe du Sénégal actuellement mmh. Mmh. je euh, à euh, ce niveau de la compétition sunu yenn joueurs yi war nañ koy moytu même pour image ñu leen di seetaan sax quelque part il faut ñuy honorer parfois seen statut y avait quand des déchets mm-hmm. te voilà on a vu parfois Sadio Mané ni muy sérieux appliqué même bu fekkee parfois tout ne pas parfait mm-hmm. mais au moins tu te euh, euh, da ngay gis ni kii Euh, gëm na li muy def il est concentré ci match bi. mais am na ñoo xam ni facilement mën nañu génn ci match bi c' est le cas de euh, abu Diallo euh, Abdou Diallo par exemple on a vu qu'il était appliqué on a vu moo Kalidou Koulibaly malgré quand même pression bi amoon ci attaquant. attaquants yi congolais yi pression bi ñu doon def. Mm-hmm. quand doon nañ garder cette sérénité là mais ci côté yi on a du mal quand même. Mm-hmm. avec euh, Ballo Touré Ballo Touré mm-hmm. doit revoir quand euh, yenn euh, ses performances jéem a seetaat. nu muy nu muy gën a c'est pas il a du mal à se libérer. on a remarqué même à Thiès il n'était pas à l'aise moment bi mu duggee match bële passé bii nii du footballu mais. quand même. Euh, c'est vrai que c'est pas. Il peut faire mieux. il n'est pas mieux. Euh, en club, ouais. Euh, Monaco, c'était pas le cas. Mhm. Mais on verra peut-être que dina gën a progresser parce que soxla nañ ko. je pense que Bakary ok ci ligne bi Bakary Cissé allo Bakary. Ouais. On a toujours du mal à l'avoir c'est pas grave on aura je pense a mën a guñu ko jot te puis mor ba léegi dañuy des ci Euh, pàcc boobu parce que mooy problème actuellement équipe nationale soo xoolee ligne yëpp. ligne boobu moom moo ci gën a doy soo xoolee ñi ko composé aussi. quelque part ça se comprend. footballu ñu footballu ñu footballu ñu Ibrahima Mbaye n'est pas titulaire en club. il joue pas beaucoup. Euh, ba Fodé Ballo-Touré également c'est pas un titulaire en club. Hmm. niveau bi demeewul noonu. Euh, mais ci côté boobu dañuy regretter quand même. choix wu coach bi parce que. mun xamuñu ni xamuñ dafa dafa gëmul. voilà joueur ah. locaux yi. parce mm-hmm. que bi mu ko sélectionné ñu ngi ko doon wax mu taru est-ce que dañ ko woo pour compléter euh, groupe bi ou bien c'est un vrai choix mm-hmm. sportif de de de l'entraîneur mais soo xoolee. ak nu muy doxaleek moom tu te poses la question ah. da ngay wax ni ah. kii peut-être que gëmul jour locaux yi mm-hmm. parce que problème yi ñu am ci côté boobu production bi nga xamee ni mbay mi ngi koy def euh, franchement mm-hmm. euh, y a concurrence waa ji mën na ko concurrencer wala mën nañ ko may chance moom tamit mu wane lu mu mën parce que fii à Thiès euh, jotoon na ko dugal ci la jiir bu ndaw mm-hmm. mu wane lu am solo ba ñëpp di tàccu naan vraiment. Mhm. Euh, entraîne bi nit ñi rafetlu nañ ko. Mhm. démb ñu bari moom lañ doon xaar sax mu démarrer match bi. Mhm. démarrer wu ko jéewul mais on se dit coach bi nag foog mu seet. waaw parce que c'est un poste boobu c'est un problème actuellement. suñu benn joueur suñu benn titulaire disponible. Sabali Sabali euh, blessé euh, Lamine Gassama il est club son club. peu euh, Mbaye joue il en club foog ñu wut solution parce que Coupe d'Afrique mhm. Coupe d'Afrique pour nga gagné ko foog nga am ay latéraux la laaf laaf yu taxaw la laaf yu taxaw loolu moom je pense que moom sax euh, xam na ko donc fekkee amul confiance ci joueurs yi nga xam ne ñooy football ci championnat Sénégal bi mhm. ah, na gën a scout xool parce que je pense que li fi nekk nii moom wane na déficit boo xam ni. Euh, faw ñu jóg ci sinon rek on peut aller vers des désillusions. parce que équipe yi ñu dajeel. du ñu foog foog foog c'est vrai que équipe du ndaw match du ndaw mais foog nga xam ni que tamit c'est pas des foudres de guerre. Euh, non mais suñu premier bi rek <laughs> défenseur bu passe euh, le l'axe central suivrul sax action bi. Mm-hmm. ba Boulaye Dia dam dugal. boo seetee voilà je sens ballon bi. il y a une différence de niveau y a y une différence moo tax quelque part aussi je pense euh, parmi les satisfactions bokk na ci Boulaye Dia mm-hmm. on a vu match yi muy football yëpp day am activité mm-hmm. mais mënuloon am chance dugal. Mm-hmm. démb dugal na je pense mm-hmm. dina ko jox confiance encore. mu gën a am confiance ci équipe nationale bi parce que il fait jouer les autres keroog ci match bi on a vu ni mu joxe Sadio Mané ba mu dugal. Euh, je pense bii bi également dina ko gën a libéré c'est la satisfaction. oui c'est bokkoon na ci vraiment euh, Villarreal équipe bi manqué woon te ñu ngi koy am ndànk-ndànk. Euh, on va faire une dernière tentative. oui avec euh, <laughs> Bakary <laughs> Cissé xool ndax Bakary il est en ligne Bakary allo Bakary Cissé. pense qu'on a. Bah, je pense que. a on a mais bon on a fait de notre comme on dit voilà. On a essayé de, dire l'essentiel. absolument <laughs> et euh, comprendre nañ eh. quand même. Euh, joxe pour jeexalee ci kooku rek. Mm. j'ai vu plein de gens dire que euh, après les débuts difficiles. Euh, il vient de connaître la délivrance mais mm. man je ne trouve même pas que ses débuts étaient difficiles parce que euh, football bi waruñu ko résumer tout juste ci but ci euh, but moom même quand il ne marquait pas il, il faisait de bons jouer. matchs il ouais. faisait ses matchs day ouais. jouer parce que c'est un bon footballeur. Hmm. day daw gis nañ keroog à euh, eh. une deux bi andi ouverture du score mais appel contre appel yi def kenn du ko gis. parfois mais il fait jouer les autres. Mhm. donc voilà am na beaucoup plus progressé à Villarreal bi euh, dañ ko def confiance actuellement il est attaquant titulaire. très bien merci beaucoup ci euh, résumé bi ma fàttali rek mooy ñaareelu bëccëg éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 groupe H bi euh, ñu ngi ko Mortal ak Cheikh Tidiane waxee essayé nañ quand même décortiquer la rencontre hier mm-hmm. malheureusement amuñu Bakary Cissé mais bon ce n'est que partie remise parce que dinañ essayé waat euh, au cours de l'émission ngir am ko bu ñu jógee ci loolu ñu jàll ci leneen muy miroir régional